ak ñi mu yónni ci kaw suuf ñu baax ñi ba tey ma di leen yëgal ne Macky Sall saltem yi nga xam ni moom la nekkee tax nañu xàmme ñu baax ñi ak ñu bon ñi ndax Macky Sall bu ñëwul woon duñu xàmmee ñu baax ñi ak ñu bon ñi waaye lima ma métti la Cheikh Anta Diop doon wax bu moytuwul bakkanam dina yem ci pale bi wala ci biir réew mi waaye tax na ñu muuri band yi ak wuyu yi ak seytaani yi ku mel ni mbay si ak muntaxa ak daaxaba ak taal yi ñooñu nga xam ne duñu dund ci gannaaw population bi la ñuy dunde yonnal i sonnal xale yi sonnal jigéen ñi góor yi mag yeeg ndaw yi di leen dig ajjana di leen dig nematu dunya wa nematul axira xewalu àddina ak alaxira te lépp lu ñuy wax ay fen la caaxaan la am na politiciens yu ma waxoon ne gis na ni ngi leen gisee nii ñu muuru nii yaakaaruñu dara lu dul ci gannaaw nguur gi di ko manipuler di ci fen di ci dajale Macky Sall gàcca ngaalaama tax nga ñu découvert bandi yi ak wuyyu yi waaye nag bandi bu mag bi mooy dof bu mag bi ndax boo muusoon doo def lii waaye bandi bu mag bi mooy yow te incha allah li Cheikh Anta Diop doon nattale mu ne quatrième chef de l' état président bu ñu moytul bakkanam ci nguur gi lay te man Macky Sall maa la gën a woor gan la xam àddina fu ma dugg a dugguloo fi fi ma dem demuloo fi margile yow président nga ma di la yegal ne waxoon naa la ne na nga moytu na sa bakken ci mbiru Ousmane Sonko teg naa ko ci ñu baax ñi teg nañu ko ci yaa ngi fooxe sa bopp te yëguloo ko ak sa njaboot am na chef de l'État yoo xam ne seen doom yi dañ leen di rey ci bitim réew na nga gastu te xam li xew di jëm seen jabar yi ay paaka ñu di leen jëm ay fetel yow nag sa entourage bi nax nañu la doomu aadama lañu duñu malaayika kon nag maa ngi leen nara a wax ne ëllëg lay préparé pour def waxtaan ak yéen yéen waa réew mi waaye yéen waa réew mi su ak yéen du yàgg pare leen genni dàq Macky Sall buy fetel buy lu mu manti doon léegi Macky ci boppam dégg naa gars yi ñu ngi voyagé di dugg ci hôtel bi dañu tiital nit yi waaye gars yi yéen ñi def live képp ku ngeen gis ne ñëw na rek na ngeen ma wax rek ma yónnee suma xaj yi waaw suma xaj yi xaj yi fekk si leen incha allahu rabil alamina di ngeen am résultat yu boor Macky Sall waxoon naa ne sa bakken sa bakken ci fii la tegu Cheikh Anta Diop waxoon na ko xaw ma kër mooy jëkk am résultat ci diggante Cheikh Anta Diop ak man mii maa ngi leen di wax ne jàngeen jëf réew mi waaye tax nga ñu muri bandi war nañu la ci remercier yaa tax ñu muri bandi ñu ne sëriñ lañu wala mbay si mu ngay reex Muntaxa mu ngay reex waaye incha allah di ngeen fekk waa àllaaxira léegi yéen ñëpp laa boole du ci wirde du ci leneen lu ngeen man xam xam def leen ko bu nekkee xam-xam lu ngeen di jaay di ngeen ma fekk ci mbedd ma ma taxaw yaram mu neen di leen xaar xamu leen dara jàngu leen dara fi ngeen toog sax xamu leen nu mu tudd waaw sirru bi nekk ak yéen ci bëccëg bi xamu leen li ngeen àndal ci bëccëg ndax ni ku nekk ñaate ñaate rawxan lay àndal ci bés bi ak ñaate jinni mu'min bu nekkee ne mu'min la waaw ndax jinni mu'min ñu baax lañu qul uhiya ilayya innahu istama'a nafaru min al jinni fa qaalu inna samina qur'anan qur'anan qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amana bi wala nushrika bi rabbina ahadan yéen bokkuloon ak ñooñu le préparé leen maa leen dëkk te man dëkk bi jot nañu léegi ci làmba bi léegi doorante moo fi des waaw jeex na ma di waa réew mi yéen laay wax ne pare leen na ngeen am jom am ful ak fayda am leen jom am ful ak fayda amna ñu ma wo ñu nañu Russie population français a un problème ak mom dirigeants yi ñoy nek di manipuler yàgg na ñu ne africain yi ñu ci histoire moy ex président ba moy manipuler ki fi nek légui ak ñom Tony Blair ñuy manipuler dof bi ngeen andal légui nak dina jeex man waxu gam ak suñu boo ëllëgee vingt deux heures ci eeru Dakar na ngeen déglu ki ñu wax Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine du ma waxantu président yi dañuy rey seen doom yi am na ñuy rey ci gar garage ci suufu garage ci Europe ak feneen ak feneen kon Macky dafa ñeme ba gàcce ngaalaama Macky da nga ñeme ngembul ngembul ñëpp dinañ dégg li nar a kaw ngembul laa la wax maala ko ak képp ko ànd ak yow waaye sa ñeenti dof yi nga xam dañu la collecté mooy mbay si ak muntaga ak tal tal yi ak wa daaxa ba xam dañuy dàqante xaw li ñuy def kon nak legi ngembul wax bi jotna wax bi parena legi li ci dess legi kun fa yakun mo fi des ndax innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun tay du mo waxtan ak yéen dama len doon nuyu ngeen préparer makki bu nek ni ñemena sa way togal nga nan sa café nga reex dinañu xam legi léegi àddina bi yep dégg li xew asalaamualeykum ورحمة الله وبركاته